dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gi di réew mi quotidien l'observateur la sa la tribune yéen i kaay yëpp xëy di ñu xamal lan ñu magistrature bu senegal yëngu na réew mi quotidien nee na li ko yëngal mooy magistrat Ousmane Kane mi nga xam ne moo nekk premier président cour d'appel bu Kaolack moo ko yëngal moo tekki ndombal tànkam ci kuréel gi di union des magistrats yu senegal wax na li nga xam ne moo ko naqari ak lan moo tax mu daal di tekki ndombal tànkam daan nay wax ne magistrat yu ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi amul benn respect amul benn wegeel boo xam ne jox nañ leen ko ñoom magistrat yu mag yi daat nay wax ne magistrat yu ndaw yi maanaam li ñu dëkkee ci réew mi mooy saaga di xaste di wax wax ju ñaaw magistrat yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci biir magistrature bi te loolee ci boppam dafa a dakk ndax tegewul fenn yéenekaay gi di L'As ak La Tribune xëy di ñu xamal ñu magistrat Ousmane Kane mi nga xam ne moo nekk premier président cour d'appel bu Kaolack bu tekkee ndombal tànkama li ko waral mooy xamadi akuk réewande gi nga xam ne moom la gis ci magistrature bi ndax loolee la wax ci lettre bi nga xam ne daat na koy bind ànd moom Ousmane Kane yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy di jàngal lettre bi nga xamante ni daan na koy génne ngir tekki ndombal tànkam maanaam ci union des magistrats yu Sénégal daan nay wax ay at ci ginnaaw amoon na ab assemblée générale boo xam ne maanaam amoon na mboole magistrat yu mag yi nga xam ne maanaam jëloon nañu kàddu dañu leen a saaga xas leen ba ñu tooy yéen a kaay gi de la témoin mu ñu xamal lan ñu moom Ousmane Kane ci lettre démission bi wax na tamit ci magistrat Ngor Diop mi nga xam union des magistrats yu Sénégal moom nag daat nay wax le linge sale doit se laver en famille nee na li nga xamante ni daal maanaam ay ñëgg-ñëgg la nekk ci biir magistrature bi maanaam waruñu ko ne ko weng ci mbedd mi génn ko ci presse bi ñoom ñoo war a toog seen biir daal di koy waxtaane ba jàmm na ñooy moom Souleymane Teliko daat nay wax ne lettre bi nga xamante ni Ousmane Kane bind na ko tekki ndombal tànkam jot nañu si danañu ko liir danañu ko càmbara danañu ko tontu yéen a kaay gii de libération xëy di ñu xamal bi nga xam ne waa ko def ci contrat bi dox diggante Senelec ak ak li waa ARMP ñoom nag dañoo seetal Makhtar Cissé mi nga xam ne moo signé woon contrat bi te ñu jàppoon ne daf saa def ay luqi njur yéen a kaay gi ñu fekk fa Serigne Koso Mbacke Touba la mu xam le nee na li nga xamante ni moo xew Mali war naa mën a xew Sénégal war a mën a xew Côte d'Ivoire ak Guinée ndax ñi nga xam ne ñooy maliens yi dañoo sonn te Ibrahima Boubacar Keïta maanaam falu ñu ko woon Mali ngir muy caxte-caxte di yàq alalu réew ma réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Abdoul Mbaye nee na li nga xam ne moo xew Mali waa CEDEAO ñoom ñoo ko waral ndax ñoom dañoo seetaan askan wi nga xam ne maanaam ñoo dëkk Mali ak seen i jafe asan ña Assane Samb xëy jël xalimaam nee na Ibrahima Boubacar Keita maanaam démissionné wul benn yoon ndax sooy démissionné maanaam da koy def si sa teeyu bakkan te ñëpp xam nañ ne Ibrahima Boubacar Keita te kiiwul ndombal tànkama ci teeyu bakkanam ndax foofe amu foon liberté te ñi nga xamante ni ñooy militaires yi waruñoo làqatu ci manifestation yi nga xam ne askan wi ñoo ko doon def ngir ñu def jëf ji nga xamante ni rafetul benn yoon yéen gii de la témoin mu xëy di ñu xamal naa ñu militaires yi nga xam ne ñoo nekk Mali foqarti nguur ga ñoo ngi woo askanu Mali ñoom ñëpp ngir ñu ànd ku dal ba pare nag commencé nekk ci seen i activité yéen i kaay gii di dak yéen i kaay gii di Dakar Times mu xëy di ñu xamal la li nga xam ne moo xewoon Libi ba ñu reyee Xadaafi ñàkku kaaraange ga maanaam su xewee Mali du bett kenn yéen i kaay gii du l'Observateur las ak évidence ñu xëy di ñu xamal la ñu Thierno Alassane Sall mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon ministre bi ñu dénk wàllum énergie dina génn benn livre livre boobu protocole de l'Élysée la ko tudde waaye nag suli na ci ay mbóota wax na si tojaange yi nga xam ne moom la nguuru Macky Sall gi nekk neexóor yi yéene kaay gi nee na wax na ci lu soxal wàllum pétrole bi ak gaz bi ak lu soxal Macky ak rakk ji di Aliou Sall wax na sax maanaam ci SMS yi Mohamed Boun Abdallah yéene kaay gi nee na en livre bu doy waar a doy waar la Sud Quotidien mu xëy di ñu xamal laan ñu général ña ñi nga xam ne ñoom lañ dénk lu jëm ci wàllum dialogue politique bi ñoo ngi nag ërtal Macky ngir élection locale yi ñu amal ko ñaar fukki fan juróom-ñett ci weeru mars ASAPEX nekk ci parti bi di AFP wax na mission bu ASAPEX maanaam développement ci la yëngu ak lépp loo xam ne jëm na ci wàllum dooleel promotion exportation maanaam jële ci réew mi yóbbu bitim réew wax na ci lu jëm ci wàllum plan Sénégal émergent wax na ci ASAPEX nan lay yombalee petite ak moyenne entreprise yi ba ñu am accès ci marché international yi wax na nag ci impact Covid 19 ak exportation yi nee na atum 2019 bi bi ñu ko xayma lu toll ci 1985 milliards yoo xam ne nañ ko ci exportation lu ñu jëlee ci réew mi yóbbu ko bitim bitim réew yéene kaay gi di estat xëy di ñu xamal lan ñu ligue des champions jamono ji xam nañu final bi diggante Paris germain ak Bayern yéene kaay gi na ma ko mooy final XL Bayern na ñoom daan nañuy dànkaafu waa Paris germain ki nga xam ne mooy Kylian Mbappé moom daan wax ne bakkanam ci terrain bi la koy bàyyee yéene kaay gi di sunu làmb dikk na ci Tapha Tine ak feem ak plan yi nga xam ne teg naka ngir daana Boy Niang